تقي تقي سالع وهو مسلم بصير لمن لله بالحق يزعن نقي تقي سالع وهو مسلم بصير لمن لله بالحق يزعن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك جلدي بك طالبي bu leen gisee bay du tedd yoyu serigne Ibrahima sar xasida yekati nak ngeen xamni nak ñi ngi wajjal nak liggey bu mag ñi ngi wajjal liggey bu tedd bobu liggey ban la muy tol yi nga xamanteni moy toli xelkom xelkom nak buñ ko tuddé xel yépp dem ci serigne Salif Mbacke borom gëtug mbur borom xabar ak mbookaa di ñaanal bu baax khalifatul ham li tarixatil muridiyya serigne muntakhas yalla yalla guddal aw fanam yoral ko ci barkeb serigne touba naka nonu non lañ koy ñaanale njabootu Serigne Touba gep waye itam non lañ koy ñaanale nak ki nga xamanteni ci mo nek ci bop njabootu Serigne Saliou Mbacké di Serigne Cheikh mom Serigne Saliou Mbacké ak njabootu Serigne Saliou gep bokki julit yi bokki taalibe yi bo len gisee jotaay bi nak ngeen xam ni daayira ba daan jug jugatina. daayira ba daan laxasaayu laxasaayu na bobu daayira moy ban muy daayira bi nga xamanteni ñoy ndawi Touba di daayira Mawahibou Akyas daayira Mawahibou Akyas nak buñ ko tuddé tuddi ndawi dekk bi yépp bokki jullit yi bokki taalibe yi daayira boobu moo jugati fa seen def nam daan def at mu jot incha allahu rabbi di liggéey bu tedd bii di liggéey Xelcom di tool yi tool yi Serigne Saliou Mbacké yi nan ko daan defee incha allahu rabbi ci ñetti at yi ñu wees yëpp noonu ñu ko fas yéene liggéey mboolem koo xamante ni si daayira bi mi ngi àndan ak yow ak liggéey bi ci bokki jullit yi bokki taalibe ak bokk yi nga xamante ni moom lañ ko baaxu àndal yëpp kon nag bis bi bokki bokk yi yëf liggéey baa ngi noonu tool yaa ngi noonu nin ko fas yéene def nag incha allahu rabbi ànd ko ki nga xamante mooy njiital daayira bi ak bokkam yi baax yi mu ko baax a àndal yëpp di sëriñ Moustapha Signor Lo mi ñëpp xam ci ci ci turu daayira Mouwahiboul Akyaas xam ngeen ni ren jii incha allahu rabbi daan def nan daan def togg nag ay ñam yoo te ni yu mucc ayib la berne yoo xamante tabarkalla ren jii nag ah ñu delloo nag mbatt ca boy boy ga fas yéene nag yokk liggéey bi nga xamante ni ndax liggéey Serigne Touba moom kanam rek lay jëm waaye du jëm ginnaaw fas yoo xamante ni sii incha allahu rabbi nan ko defoon daaw ren jii nag daa yokk ren jii nag ñu a togg nag incha allahu rabbi 65 mbana yi nga xamante ni si danañ ko togg ren jii fas yéene yokk jéego yi nga xamante ni moom la nekkoon daaw ren jii dinañ ko yokk incha allahu berne yi nag façon togg bu ne incha allahu rabbi dina am ci mba mbana yooyu di 65 mbana yooyu ak lan lam baaxu àndal yëpp fas yéene dem ci daara yi fas yéene dem ci berna donge yi tarbiya berna berne donge yi nga xamanteni ño nek nekk ci tooli Khelcom yëpp yu Serigne Salif mbacke kon nak liggey baangi nonu xam ngeen daan nañ ko and ak ki nga xamanteni ni si mooy Serigne fallu mbacke transfert bu sëñ Bamba bi bi ñepp xam ak ki nga xamanteni ni si mooy soxna su bax si nga xam di soxna ndey bu so mbacke mom soxna may galas mom Cheikh Mamadou Fadal waye itam xam ngeen ni soxna mam Fatou Sidi mom Serigne Sidi mom Cheikh Abdoulaye lakhat ah moom dan nañ ko dinañ dan nañ ko and ak mom ci toli ak ki nga xamante ni mooy soxna Bali Jaxate asalaamaaleykum wa rahmatullah naa bi ñu sante yàlla julli ci yonent bu tedd bi doollee santaat Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké yàlla ñu ko yàlla fay doon fay ñu doollee teewaat fii teewa jotaay euh, liggéey liggéey bu rafet baaxoo ko liggéeyal Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké ñun ñu nekkal leen ci bopp ba eh, ànd ñoom ci liggéey boobu ñoo ñuy rafetlu liggéey bu baax a baax a baax ci ndigalul Sëriñ Lo nga xam ne moo am initiative boobu jiite liggéey bi moo ko sa Serigne Saliou Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara euh, moom waroon naa ñëw sax xam naa dafa am lu ko tënk waaye waroon naa teewee jotaay bi tey euh, dañ daan baaxoo bu mbàcc mi massa jub si ñu àndandoo togg ay ñam yu sel yóbbu ko ci tool yi daaw defoon nañ ko ci juróom fukki mbana ren yokk nañ ko ba juróom benn fukk ak juróom euh, muy 65 mbana incha allahu rabi ñuy ñaan yàlla suñ borom kàttan la leen ci bañ yéene ji ñu am ci def ko suñ borom kàttan leen bañ def ci lu faw ko seen bu ñu defee loolu pare benn dongo yi le 6 le le 6 incha allahu rabi bu ñu benn dongo yi pare bu loolu jàllee dañuy dañoo baaxoo jënd ay dàll ak ay basang ak ay euh, ay satala ak mboolem dongo di soxla ci daara dem jébbal ko seen Cheikh moom Serigne Saliou Mbacke suñu yaakaar yi tey ëllëg yàlla na ko suñu borom yàggal. noonu la daayira bi baaxoo def muy liggéey bu sell di liggéey boo xamante bi képp koo xamante bii Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké sab sëriñ la wala muy sab soppe ñu ngi la ci woo ñu àndoo liggéey boobu liggéey bi li képp koo gis appel bii na nga xam ne liggéey bi sab liggéey la ñu ngi la ciy woo incha allah rabbi ñu àndoo liggéeyal Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké ndax euh, dama koy wax rek liggéey liggéeyal Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké ku la ci woo dalaa bëgg a dimbali ba tax na appel bii képp ko gis na nga xam ne mooy sa invitation mooy sa mooy sa boote ñu ngi ciy woo képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay woo ci bis nga ñëw ñu ànd liggéeyal sëriñ bi dañuy togg bernde yi buñ paree dajale bagage yi jëm ca donga ya dem jëbbal ko sëriñ Seex moom sëriñ Sadio Mbacke di ñaanal sëriñ Seex moom sëriñ Sadio Mbacke suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ak mbooleem njabootuk sëriñ Saliou Mbacke gépp suñu borom teg ñoom loxo di ci woo ñëpp rek képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi lay woo ci bis bii nga xam ni le 6 la départ bi di ajjuma waaye le 8 nag mooy bis bi nga xam ni daayira Mawahibou Akyaas dongay tërbiya yooyu nga xam ni amuñu lu dul Serigne Saliou ci njiital Serigne Saliou mu Alhaji Mouhamadou Lamine Baar ak Serigne Moustapha mi ak Minikar moom Serigne Saliou ca la ni le booba ca la ni togg ay berne nag yóbbu ko ca xel ko kon na ci ñëpp bàyyi xel bis baa ngi noonu di wootal xel kom wootal liggéeyub Serigne Saliou noo ñaan ku fa teew yàlla na Serigne Saliou faj see aajo. mbokk yi nag bis baa ngoogu nag noo ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba yàlla nu ci yàlla yóbbu jàmm incha allahu rabbi mboolem koo xamante ni daal dégg nga woote bii na xam ni mooy sa carte soutien mooy sa lettre waaye mooy sa ak fàttali ak sa yëgle ni ko fàtte ndax tool yi nga xamante ni moom la woote ki nga xamante ni si moo ko sosal mooy Serigne Saliou Mbacké kon nag bis baa ngoogu bokki jullit yëpp bokki taalibe yi bis bi daal ñi ngi ci woo wëllëre yi xarit yi am bi jàmbi yëpp ak mboolem nag koo xamante ni soppeem Serigne la ñu ngi lay woo incha allahu rabbi bu nu demee nag xam ngeen ni bu nu demee ci tool yi ba ñëw ah ci leen nag waajal nag liggéey bi nga xamante ni ci leen waajal ndab yi ak mboolem loo xamante ni dongo dina ko soxla ci daaree xel kon ak mboolem daaree Serigne Saliou yëpp nu ànd ak teg daayira bi fekk ki nga xamante ni mooy Serigne Cheikh moom Serigne Saliou mu jolloowaat ko mooy départ bi bu ko kenn fàtte noo ngi ñaan ci barkeb Serigne Saliou Mbacké nag képp ku ci teew yàlla na Serigne Saliou fat la xam ngeen ne Serigne Saliou ku mu fat doo fanaan biti bokki bis baa ngoog wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu